Cheikh Ndiaye maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. Cheikh Ndiaye nga nekk expert en géopolitique laaj bu njëkk euh, bu ma lay laaj euh, naka nga gisee organisation coupe du monde deux mille vingt deux bi nga xam ni Qatar euh, moo ko amal baax na wala baaxul. waaw organisation coupe du monde vingt Qatar amal baax na malgré que gis nañ ni. communauté internationale bi dañoo émetre ay critiques yu métti si Qatar naan dëkk la boo xam ne du respecter droit de l'homme dëkk la boo xam ne dañoo xaw a fermé wu te mën nañ ni sax loolu yëpp amul parce que Qatar dafa di dëkk boo xam ne dafa ndaw bu nekkoon sous occupation britannique mais bi ñu ñëwee ba si année trente fii si ci lañ découvrir pétrole bi bi ñu découvrir pétrole bi nag euh, loolu permettre Qatar mu am benn essor économique jóge peut-être ay vingt cinq mille habitants dem ay cent cent mille habitants vers les années soixante dix donc découverte pétrole boobu dafa permettre Qatar mu def ay bon en avant par rapport au plan économique xam nañ ni wàllum PIB année soixante dix rek Qatar cumulé woon na plus de trois cent millions de euh, dollars pour wax leen ni leen rek Qatar dafa di dëkk boo xam ne dafa nekkoon sous occupation mais bi ñu demee ba gis ni ay richesse mu fiy génn ñu mënee ay politique yoo xam ne daleen leen ñu am doole ñu am euh, contrôler seen économique contrôler seen ay ressources mën ko jaay au niveau international tey jii mën naa ni Qatar mooy si cinq pays ëpp réserve gaz ci àdduna la bokk moom ak ay Iran ak Russie ak Venezuela ay pays pétrolier lañ ay pays gazier lañ ñoo xam ne seen manne financière dafa am doole donc découverte gaz boobu en 1971 dafa permettre Qatar mu am benn politique extérieure politique extérieure boo xam ne dafa soutenir euh, révolution arabe yi gis ngeen printemps arabe yi 2011 Qatar ni mu activé woon euh, contre régime yi nekk Égypte contre régime yi nekk Libye Tunisie donc Qatar dafa di woon dëkk boo xam ne dafa ndawoon ñàkkoon doole nekkoon dëkk boo xam ne ay voisins am ku mel ni Arabie daf ko dominé woon ak yeneen voisins mais bi Qatar demee ba suqaliku économiquement dafa nanguwaat puissance am nanguwaat ay ressources am géreel ko boppam jaayal ka boppam donc loolu daf ko permettre mu def ay bon en avant sur le plan économique loolu nag ubbil ko buntu yu bëri au niveau international dañ naan dëkk bu ndaw la mais une grande diplomatie comme ni koy waxee rek pour Sénégal mais avantage bi Qatar am mooy dafa contrôler ay ressources am contrôler xaalisam contrôler léppam loolu da ko permettre sur le plan international mu influent gis nañ conflit yu bëri dañ ciy gis loxoom pour indi juboo diggante parti yi ci mel ni Tchad la fa xewoon gis nañ ni Qatar dialogue national inclusif bi sax tchadien yi ñoom Mahamat Déby ak opposition tchadienne fa lañ daje woon sax pour waxtaanee ci wàllum jàmm ak yeneen dëkk pour wan leen ni leen rek Qatar dafa di dëkk boo xam ne dëkk bu ndaw la mais euh, lépp lu mu dugg da koy réussir pour en revenir à cette coupe du monde laa gis nañ ni Qatar bi muy organiser coupe du monde bi dëkk yi bëri dañ ko critiquer ndax dañ ni du respecte droit de l'homme ndax dëkk ba migrants yi fay liggéey kenn respecté wu leen li leen di fay baaxul alors que xam nañ ni Qatar c'est pays boo xam ne euh, IDHM indice de développement humain om yi gën a baax ci àdduna bi la bokk ndax population yi dañ ils sont extrêmement riches donc euh, dafa di dëkk boo xam ne aussi sur le plan militaire dem na ba euh, am plus de vingt sept mille hommes ba wut sax ay yoo xam ne ay contractuels la ñuy jóge Turquie ak Pakistan donc pour wane ni rek Qatar dafa profité wu ci richesse am pour defaru mais tamit pour jéem ubbeeku ci àddina bi te li ko gën a may tamit coupe du monde bi ci la bokk de si coupe du monde bi da cee profité wane mën-mënam ci aspect yëpp maanaam organisation defar stade yi Euh, match yi jaar yoon ay match reporté amul waaw maanaam lépp jaaroon na yoon ba pare mu defar ay stade yoo xam ne dañ dem ba koy climatiser donc pour wax leen rek ni Qatar daal coupe du monde bi peut-être am na ay critiques yu ñu a émettre mais bu dee wàllum réussite moom xam naa ni relever na défi. Mhm. lan mooy enjeu wu Cheikh Ndiaye. ci organiser euh, coupe du monde maanaam réew bu mënti doon. nga mhm. organiser coupe du monde lan mooy enjeu yi. léegi réew bu mu mënti doon nga organiser coupe du monde enjeu bi ñu ci war a njëkk soulever mooy enjeu organisationnel tout d'abord mais tamit sa wàllum image parce que Qatar wàllum organisation dañ ko joxoon ay délai pour mu defar ay stade te délai yooyu na ko defar na ko à un temps record pratiquement même bo amee yenn retard yu ndaw yoo xam ne mënul ñàkk mais ci côté image dañoo yàgg jàppee Qatar dëkk boo xam ne respecté wul kenn respecté wul ay droits de l'homme xaalis lañ xam maanaam wàllum voilà économie lañ xam c'est un pays corrupteur sax dem nañ ba koy woowee noonu ak dëkk boo xam ne day financer le terrorisme ak yooyu yëpp lañ yàgg jàppee Qatar teewul Qatar wane nañ ci coupe du monde bi ni man nekkuma rek dëkk boo xam ne dama nekk euh, dëkk boo xam day suivre day suivre quoi comme ni ko tubaab di waxee mais dama di dëkk boo xam ne damay affirmer wu wane ni ñun au Moyen-Orient par rapport ak suñu culture par rapport ak suñu tradition dañ defar coupe du monde bu mucc ayub boo xam ne musul am ci àdduna te ñoom loolu wane nañ parce que dëkk boo gis muy organiser coupe du monde culture am lay jëkk mettre en avant yéen ngi fàttaliku Afrique bi ñuy organiser coupe du monde euh, défilé yi amoon nga xam ne sud africain yi ak africain yi de manière globale dañoo wane seen art seen mënin ci wàllum aada ak cosaan gis ngeen Russie tamit ba mu organiser coupe du moon dafa wane aadama ak cosaanam ci wàllum aar rek ci wàllum domaine yëpp Qatar tamit noonu la bëggoon wane àdduna bi ni leen moo tax seen émir bi dafa dem ba ni il faut dëkk yi ñu nangu diversité bi ñu bi bi bi bi am ci àdduna bi mais diversité diversité boobu excusez moo ñu war a boole parce que képp ku nekk da nga war respecter sa moroom ci diversité bi mu nekk donc ñun Qatar respecté lañu suñu diversité accepté wuñu yéen peut-être occidentaux yi ngeen accepté seen dëkk loolu nangul nañ leen ko mais ñun li ñu accepté suñu dëkk ak li ñu def suñu dëkk nangul leen ñu ko te loolu sax nit ñu bëri dem nañ ba tombé ci d'accord donc loolu mooy li ñu mën a jàpp ci dëkk bu organiser coupe du dëkk bu organiser coupe ak sa mën-mën euh, au niveau international et au niveau planétaire. Euh, retombées financières yi nag koppar bi war na bëri waaw wala. waaw koppar bi moom wàllum koppar bi comme li ma la wax sànq xëy na bëri na sax waaye dooleel Qatar koppar moom yaakaar naa ni tooñ sa bopp la parce que Qatar dafa di dëkk boo xam ne wàllum koppar li ci am dëkk yi ko am ci àdduna bi donc bëriwul donc coupe du monde bi xëy xëy na dolli na ay koppar Qatar waaye yaakaar naa ni. dafa ñëw <laughs> voilà daka appuyer waat donc parce que Qatar moom yaakaar naa retombé yi jóge ci coupe du monde du ma ni ko de waaye daanaka voilà. du dara ci moom daal du dara ci moom daal wax dëgg na wane boppam daal rek. nu waaw na daal wane boppam mais bu dee wàllum xaalis rek. Mm. taxu ko organiser coupe du monde. Euh, ñu gis ni tamit euh, organisation coupe du monde bi rapproché ne un peu Qatar ak Arabie Saoudite ban analyse nga ciy def Cheikh Ndiaye. waaw rapprochement bi am diggante Arabie Saoudite ak Qatar ci coupe du monde bi loolu ñëpp nga doon xaar ndax xam nañu dañu ñaari dëkk yoo xam dañu xaw a parce que Moyen-Orient itam il est important de souligner que ñaari grand yi fa nekk Arabie Saoudite ak Iran dafa di ñaari dëkk yoo xam ne dañoo am ay division yoo xam ne ça ça remonte depuis des des années lumière donc euh, division boobu dafa yàgg am te Qatar dafa di dëkk boo xam ne dafa yàgg affirmé wu par rapport ak Arabie Saoudite depuis bi mu découvrir ay gaz pétrole ak richesse boobu moo am dafa yàgg départir wu par rapport à la politique saoudienne nga xam ne Arabie Saoudite dafa daan imposer modèle de politique am euh, sous région bi yëpp mais Qatar depuis bi mu demee ba am doole ba au niveau international dëkk yëpp di daw ci ginnaawam ndax ay richesse am si la commencé affirmer wu nag nekk une grande diplomatie di participer dans tous les théâtres d'opération di di waxtaan di jubale di boole vraiment Qatar dafa di dëkk boo xam ne doole boobu dafa dem ba am ko ba affirmer wu ba wan Arabie saoudite ni ko moom it euh, dina participer ci li xew Moyen-Orient mais nag coupe monde bi rapproché na leen mais ça ne veut pas dire aussi que ëllëg euh, xëy na problème du amaat seen diggante ndax xam nañ ni ñaari boo booloowuñu ci wàllum déggoowuñu daal bu ma ko mënee waxee noonu ci wàllum politique internationale euh, ak ci wàllum politique sous-régionale par rapport à la question palestinienne par rapport à l'Iran qui cherche euh, à être une puissance nucléaire ak d'autres aspects yoo xam ne division la daal au sein du Moyen-Orient Euh, Cheikh ma laajaat la leneen euh, Afrique euh, moom benn yoon rek la organiser coupe du monde mooy caatum 2010 Afrique du Sud moo ko amaloon pour yow yéen yeneen réew Afrique ñoo fi taxaw carrément pour mën a organiser compétition bu mel ni coupe du monde. bon Afrique moom da di continent boo xam ne wane na boppam si organisation coupe du monde bi amoon par l' Afrique du Sud gis nañ Afrique du Sud tamit wane capacité organisationnelle am dooreel image am tamit parce que ñëpp lañ jàppoon ne Afrique du Sud pays xaw a xénophobe la ak apartheid bi fa amoon ak yooyu ba tey daa am problème interne bi fa amoon mais teewul Afrique du Sud relevé na défi organiser na coupe du monde boobu te réussir na ko donc loolu dafa di woon lu important mais yeneen pays africains yi tamit war nañ ko mën a organiser Maroc nii ñu gis candidat la woon. finalement joxuñu ko sax Maroc je pense États-Unis dañ ko mujjee jox donc Maroc dafa di woon pays boo xam ne candidat la te loolu ça va en du Maroc parce que gis ngeen ni Maroc dafa am politique sportive boo xam ne dafa ko permettre mu développer ay infrastructure am financer ay championnat am championnat am doole si championnat yi gën am doole Afrique la bokk donc les joueurs sont vraiment je ne dirais pas bien payés assez bien payés mais les joueurs euh, joueurs ñoo ngi leen di fay payoor yu baax loolu permettre na leen Maroc ñu développer seen football donc loolu wane nañ ko ci coupe du monde bi dem nañ ba demi finale mënu nañ sax buñ góorgóorloon accéder en en finale te loolu nag euh, cri de cœur la bu may def peut-être par rapport au mm-hmm. la population mais par rapport à nos dirigeants dirigeants yi li ma leen di ñaan rek mooy ñu yokk par rapport à la politique sportive gis nañ ñun Sénégal stade Abdoulaye Wade bi ñu am Thiès bi ñoo fonctionné gum xëy na ñoo ngi réfectionné Léopold Senghor ak yeneen yi des mais il faut ñu yokkaat par rapport au stade yooyu defaraat politique sportive bi gëm ko financer club yi nekk suñu championnat par exemple Ligue 1 sénégalaise club yi dëgg la baax nañ mais il faut ñu yokk seen doole yokk payooru joueurs yi loolu da leen di motiver pour ñu toog seen dëkk pour football local bi ñu mën ko développer nga xam ne suñu entraîneur yi bu ñuy sélectionner mën a sélectionner waane suñu joueurs yi donc coupe du monde bi pratiquement gis ngeen nationaux yi kenn pratiquement kenn demu si. Mm-hmm. donc loolu pour wan leen ni leen rek euh, pays africain yi bu nañu góorgóorlu ci domaine boobu population bi moom leen rek laay mën a wax ci ñoom il faut ñu xam ni coupe du monde liggéey moo la koy may il faut nga liggéey du ay sëriñ. donc dañoo war a génn suñu pa hmm. voilà mystique pensée bu yàgg yàgg boobu ñu yor foog ni mystique moo lay may coupe du monde il faut ñu génn ci parce que coupe du monde ma ngay am depuis mille mais benn pays africain jëlagul fi coupe du monde eggagul hmm. donc euh, gis ni dëkk yi ki jël yëpp dañoo liggéey Argentine jël na ko liggéey Allemagne liggéey France donc ñun pays africain nañu liggéey sur le plan pour ñu mën ko jël mais bu ñu bëggee toog naan euh, euh, féticheur bi wax na lii. Hmm. nee na suba nañ def ndel loolu loolu moo ñu may coupe du ah, monde. parce que doy na waat boobu ba léegi Afrique mënul fexe ba. Euh, indi coupe bi fii ci biir Afrique. non c'est lu doy waar récemment le Maroc ma accédé demi lu doy waar lu doy waar parce que la ñu organisé coupe du monde 30 ba 39 30 39 45 deuxième guerre mondiale am tubaab bi nekk si xeex bu métti pare reprendraat coupe du monde bi ñu organisé. duggaat ci guerre froide guerre froide bi mètre quatre-vingt-dix mu jeex coupe du monde yi teewul dëkk yaa ko doon jël malgré xeex yooyu am ak problème yooyu amoon seen biir ñu ñëw vingt et unième siècle bu ci loolu day wane ni dafa am benn retard bu nekk ci ñun loolu il faut ñu génn ci xam ni liggéey daal moo la mën a may sa dëkk développé moo la mën a may sa dëkk avancé. voilà Cheikh Ndiaye Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. xam ah, naa si. may fàttali ne expert nga en géopolitique ñu lay remercier bu baax a baax ci sa disponibilité. merci à vous.